solo noonu lañuy pare di raam ndànk ah, ndax bi ndax bi neuf lacrymogène lay sànnendoo ah? waaw kon li jeex. bu génnee li jeex xaw ma sax 18. 18 18 18 lacrymogène lay sànneendoo euh, li nga bëgg di nga ko am lacrymogène bu nekk dina def lu bon bon ñett. noonu la la a def. di raam ndànk ah, ndax bi ñu ngi nii lay sànneendoo. Ah? waaw kon bii bu li jeex. bu xaw ma sax dix huit. dix huit dix huit dix huit lay sànneendoo. Euh, li nga bëgg di nga ko am lacrymogène bu nekk dina def lu bon bon ñett.